li diiru Pastef bi naka di wuyoo ci tuuru Ousmane Sonko naka nekk ci guddi gu bët setagut ndax kii di Ousmane Sonko nag ginnaaw bi nga ne bii ay démb génn na def ba benn page sortie wala sax tey jii nii mu daal def benn page sortie di eh, dénk boppam ñi nga xam ne bii ñooy Sénégal yi dénk ki nga xam ne bii moom mooy yàlla di fàttali ne boppam daal jox ko kenn ku dul peuple bu Sénégal kooku di Ousmane Sonko nag. ginnaaw ba daal kii di Mola Morgan nag nee na a Sonko pare na lépp pour man ko jëli fi nga xam ne bii mooy ca këram ñi nga xam ne bii sax ñoom ñoo war a jëli ki nga xam ne bii mooy Ousmane Sonko foofa ca këram ngir buñ ko woowee nee na ñooña defi nan li nga xam ne bii mooy formation ànd ci ak ay juif ñu ngi ko doon defee ci àll ba bee be nee na foofu doon defee li nga xam ne bii mooy formation bi ah, pour mën a dugg ci kër Ousmane Sonko corde yi nga xam ne bii moom la ñu yor pour mën a pénétrer kër Ousmane Sonko matuwaay yi nga xam ne bii fa la ñuy jaar yëpp pour dugg ci kër Ousmane Sonko pour man ne ko nii. Euh, daal di koy làq jant bi ba deux vingt quatre du bokk ci li nga xam ne bii mooy élection yi loolu lépp kii di Mola Morgan nag dikkaat na ci bu baax a baax te seetlu nañ kii di Ousmane Sonko nag démb bi nga xam ne bi wala tey ji sax bi muy def li nga xam ne bii mooy ab discours am discours ba daal Ousmane Sonko ñu ngi ci gis ne mel na ni am na loo xam ne bii yëg na ko ci ab yaramam.